waaw c'est c'est deuxième question bi ci kii la woon Kaba. waaw Kaba Diawara. Kaba Kaba Diawara. su tey bi bon est-ce mais ils ont intérêt à faire attention dans ce match là les Guinéens. Hmm. ñoom ñoo gën a ëpp intérêt. def attention ci match ci match le Cameroun n'est pas encore éliminé ah. Cameroun le Cameroun n'est pas encore éliminé. Mmh. donc ils doivent faire ñoom ñoo parce qu'il te dit quelque part que euh, suñu amee match nul dañ koy jël. ça veut dire quoi c'est que ils sont dans les calculs mm est-ce que ñoom tey dañuy ñëw ne dañuy attaquer Sénégal gëmuma ko en tout cas ils ont les jours pour les jours pour mais un match soo tollee fii dans les compétitions ça se gère les Italiens bu ñu yegsee bu fii dañuy ñëw bàyyi la match bi le résultat il faut que ñoom la ñoom ñu privilégier le résultat plutôt que cette envie de battre le, ouais, le, le, le Sénégal alors man fi ma bëggoon ñëw Pape c'est bon dama bëggoon lan <laughs> mooy si même match bi laa bëgg laaj. si dëkk da ngay xaar aussi plateau bi yow kese nekkoo fi <laughs> ah il faut a Kajoor Kajoor mu ngi fi oh, s'il te plaît s'il te plaît. allez-y wala si même si même kii bi rek. parce que dañoo dañoo ñu am de deux deux matchs deux victoires. Mhm. Euh, bon si match yi nii est-ce que même équipe bi. vous pensez que même équipe bi la ñuy con la ñuy conserver wala la ñuy euh, bon je lan mooy avantage équipe équipe je ne pense pas. y a y a peut-être quelques changements yu ñu war a mën a mën a attendre euh, euh, euh, Abdou Diallo qui ne jouera pas le, mm -hmm. le mm-hmm. prochain match. Mm-hmm. war nañu mën a indi indi indi une solution Niakhaté est est revenu dans dans dans le groupe maintenant est-ce que dafay tourner équipe équipe am connaissant Aliou Cissé il va mettre son équipe type. ok alors bu ñu ñëwaatee un peu ci. match de parce que, parce que euh, Sénégal warul jël deuxième. Sénégal warul jël. deuxième l'enjeu c'est la première place. la première place pour pouvoir rester à Yamoussoukro. Euh, jouer face à quart de finale.